jàmm di leen dalal jàmm bu baakha baax ci Hann TV nak ñëwaat nañ ci seen émission l'invité l'invité tay ñu am ay gan yu maga a mag ñu nga xamanteni Sénégal ndjay aduna ñepp leen xam ci bir lolu tay dañuy dalal euh, groupe Foukenkook groupe Foukenkook bu ñu leen di wax ñepp xamé nañ leen won ci compilation Maestro Sega Foukenkook kep ku ko dégg ku ne dina xamné cafétéria ba muy nek cafétéria dëggantaan Foukenkook du seppi wu ci won loxam Fouken kip tamit bokoy wax yëkëti won nañ ci son bu dal bi nga xamanteni ni na bruit bi trop trop trop caw caw caw bu ngandé muy yen bu ci lolu nak novembre 2015 ñu génné album bu nga xamanteni album bu taxawa taxaw aduna bi partout dans le monde album bi dem ci ñu def show dédicace album bi le 21 novembre 2015 fofu ci Sorano groupe Fouken Coupe ma ngi leen di dalal bu baax a baax fii ci Antv TV ci seen émission l'invité. new ñuy siyaar new Son ñuy siyaar téléspectateur u Hann TV yëpp Cap de Sess Fucking Cook Daf Sénégal West Africa worldwide Aye. Canal Row Canal Row bii di the dangerous rhyme Zunum Mbada represent Daf Giro, Def Generation Zunum worldwide Kébé for all Yeah, Kanaro, Kanaro, young I'm free lord, aka technical nigga, tactical jigger, fucking cook, Dav Gero represent. Hi, dëggal bi forever. Cap de Sës dama lay laaj directement rek euh, lan moo indi liaison bi entre euh, Sibi Fuken Cook quoi parce que képp ku xamoon euh, suivroon hip hop Galsen xamoon na ni Fuken Cook carrément nekkul groupe groupe bu juddu rek nekk Fuken Cook ku nekk ci yéen dafa amoon fu mu nekkoon lan moo indi collaboration bi ba Fuken Cook taxaw. waaw comme li nga expliqué la rek ah, parce que Fuk Cook man na ma doon def carrière solo man a Crazy Cool partagé nañ groupe après mooy def carrière solo Free Lord aussi après bi gars yi mu doon joobal bu ñu demee moom aussi mu nekk carrière solo puis di pareil eh, li créé Fuk Cook mooy dañu ne ñun Dalifort lañ dëkk yaraax ñu doon gis ne hip hop bi auparavant dañuy wax Géejawaay dañuy wax Caaroy dañuy wax Yëmbal dañuy wax quartier yëpp mais sauf ñaari quartier muy Dalifort ak yaraax ñaari quartier yooyu noonu ñun ci diggante boobu noonu lañu nekk fa la ñu juddoo fa la ñu màgg et xamoon nañ ne am nañu talent bu am solo boo xam ne ça n'a rien à voir ak ñi nekk Pikine ak Thiaroye ak Yëmbal bu ñu am leeroon nañu ne am na loo xam ne mu ngi woon fii mais comment naka naka la ñuy def pour mën a fësal loolu et loolu noonu la ay copains bande de copains ay ay ñoom ñoo gis ne war nañu mën a créer benn cartel parce que Fuk N Kuk au début esprit bi connexion la woon cartel la woon ci lañ ma woo woo Free

talent bobu noonu muna na dundal lu bëri ci rap Sénégal et buñu tagué connexion bi ñu nekk ci di job comme ni nga ko en 2006 2007 ci la njëkk a émerger ci Gambie ak compilation Maestro Sega ñu defoon morceau bu tuddu wane laay def wane laay def moy comme luma ma la wax c'était pour montrer aduna bi que yé amna benen beneen koono am na yeneen yu nekk fi yu bokkul ak yu ñu doon dégg ñu def morceau bi wane laay def morceau bi am succès ci compilation bobu noonu ñu pousse ko aussi idée bi moo nekkoon ñun doon ñu woon invité ci concert yu bari mais dañu ne non coow jubul la mais ñun am nañ cafétéria nañ jël cafétéria soppi ko simple et ñu nekk cafétéria de 2005 ba bis ki tey comme fu may waxee ni ñu koy dundal di dundal ba nga xam ne dem na ba benn moment ku génnee album ci rap Sénégal bi yëpp Bibson nu mu tudd Simon maanaam rapport Sénégal yëpp ku génne génnewoon album da ngay ñëw ba cafétéria def fa manif c'est parce que créé woon nañu engouement boobu noonu biir cafétéria biir yaraax muy dundu carrément et loolu moo nekkoon objectif bi mooy comme lu ñuy wax fu kenn ko groupe défi la dañ ko dañ ko dañ ko former ci défi pour relever défi yi nga xam ne vraiment moom mooy moom mooy moom mooy suñu maata par rapport ak suñu quartier yi loolu la quoi ci gàttal. ngeen relever défi boobu bu baax a baax euh, ñëpp tamit teg ci seen bët euh, ñëpp tamit ci action nan la demee ci biir loolu sûrement ngeen def wane laay def ngeen wane tamit hip hop euh, Daaf Ghetto

ay gaalam yàgg nañ parce que comme ni ñu ko yàggee yàgg nañ nekk ci underground bi comme que fukkeen groupe défi la mosuñu génnee ay son di ko joxe ci rajo yi quoi boobu moo nekkoon suñu first son bi am na benn euh, neen son bi war leen ko def ci compil quoi parce que son bi nañ ko denc pour seen album quoi parce que moom xalaatam son bi dafa nickel quoi mais ñun yàgg nañ xam ne war nañ mën def lu lu ëpp loolu quoi lu ñu def dañ koy def après dañuy jàll pour dem ci leneen quoi son boobu def nañ ko juste moment yooyu xam nañ ne chaque jour ñun xam ñu ci yeneen dimension maanaam war nañ mun def chaque fois lu raw lu ñu defoon démb ak barki démb quoi son bi yóbbu nañu fu sori te et xam nga instant yi fàtte nañ ko ñu ngi ci yeneen quoi ci biir loolu Pidi man fu may ñëw ak yow mooy que ni euh, ngeen def wone laay def 2005 comme nu ko Cap waxee 2005 2006 ngeen toog benn 3 ans euh, fu kenn coupe low down bon kenn déggagu ko ngeen ñëwee ci ay euh, cash ay ay ay metti ay yéeg si kaw ay rappeur yéeg si kaw ay artistes lan la woon da ngeen bugaat fësaat bugaat amaat benn allure wala lan la woon lu xewoon. Oh, du bëgg am beneen allure parce que jës dafa am la nga ay compte la woon ya nga xam ne il fallait ñu régler ko en tant que ay nit ya nga xam ne dañ jóge ci géro am la nga mbedd mi def ñu ko jàngal te mënuñu ko woon ñàkk a def parce que xam nga ça fait partie quoi ci la bokk ñu jóg jàll ci leneen du 3 ans du 4 ans c'est que sometime nag métti woon na quoi. comme gars yi ñu koy faral di wax parce que moment bi nga xam ne moo nekk 2006 2007 bi ñu defee loolu mën nañu wax ne Sénégal tur yi fi amoon li amoon yëpp de gars yi kët mais comme ni ko Firi waxee sàngal dañuy replier suñu daaf giro parce lu ñu mënti doon moom moo ñu ko def du doomu aadama du nit quoi gars yi gis et puis ko god def ñu dellusiwaat back to the roots nekkaat suñu job yee kenn fekk ñu fii ba daara ji gis loolu noonu ñëw jël si Sénégal génn na travers international bi quoi ceega loolu yëpp dafay delluwaat ci li la kap doon wax sànq fu ngeen ko dafa nekk benn groupe de défi bu ñuy wax groupe de défi limité wul si daaf giro bi kase limité wul ci cafétéria kase parce que yooyu yëpp ay yoon la parce que entrée téeméer lañ fa tàmbalee jóge fa dem ji hip hop daf ko entrée tri taw jóge fa dem Sorano di ko def entrée cinquante mille francs daaf giro la ñu tàmbalee daaf gero la ñu tàmbalee fii jóge daaf gero pour wan gaay pour ñu xam daaf gero pour wan gaay pour ñu xam ne am na beneen groupe bu bokk la gaay pour Sénégal mun a comprendre mais tey ñu ngi ci wóolu waa tey ñu ngi ci àdduna bi di ko rëppatal kon pour wane le défi la combat la ba nga xam ne xam nga dañ koy dañ ciy nekk all day all time quoi. mais kap su loolu euh, yëngal kii bi yëngal 2009 2010 bi lan wane ban façon rabine la woon wala hip bi lan la fii la. waaw parce que game la xam nga bu ñu waxee game xam nga ñu dañu nekk ci quartier yoo xam ne amul producteur amuñu branlon. fii amul dara yoo xam nga loolu muy dale forme mu yaraax amuñu producteur amuñu ay grand yoo xam ne mun nañu génne et alors que am na nañu nekkoon ci ay quartiers yoo xam ne amoon nañu ay branlon label yëpp fa lañ nekkoon producteur yi fa lañ nekk old school yi rap fa lañ nekk et ñoom ñoo ñuy ëpp opportunité et opportunité boobu taxul ñu ñu gën ñu mun rap et léegi ñun amuñu branlon amuñu dara e nit ñi bëgguñu ñu parce que banlieue lañ jógee parce que nu ñuy soloo parce que parce que parce que ñun on s'en fout léegi nag am nañ arme boo xam ne mun nañu am accès ci gaay arme bi moo nekkoon lyrics yi arme moo nekkoon spirit bi arme moo nekkoon en fait lépp li nga xam ne parcours nañ ko ci underground bi mu joxñu mu joxñu benn power et loolu kenn duñu ko tere teg léegi nag bu ñu ñëwee ci Gambie les gens dañ doon wax ay garçon ñoo fi nekkoon di xam nga waa di ko tàngal et léegi ñun bu ñuy ñëw pour wan leen ko c'est que dañ leen koy wan lu ñu leen koy wane c'est que tous les moyens sont bons pour ñu wan leen ko parce que it's high time dafa joroon parce que ñun am nañ ay grands frères yoo xam ne plus de 45 ans amnañ ko rap nañ fii nii ba lépp seey kenn xamu leen et ñun mënuñu ñëwaat ci ci même logique bobu nonu après ci lañu am ay beef ak ay ak ay groupe yu bari comme niñ ko waxe fuken kook ñun dañuy def lepp li rabbi laaj dañuy bu laajé xex dañuy xex bu laajé clash dañuy clash et bu laajé tek xel aussi dañuy tek xel bu laajé positif ñun on est positif c'est que lolu ci hip hop la boko ci mbedd la boko et lolu mënu mënuloon ñak ci yoon bi c'est juste pour se faire remarquer effectivement am solo parce que bu fekkee ne da ngay yuuxu kenn c'est que non dañuy def bruit bi nga xam day tax ñu ñu et puis bu ñu gesoo matador. non of course. non du du politique du. Hmm, waaw waaw. Uh-huh. Hmm. waaw Soit disant waaw parce que xam nga lu tax nekul foog ñu laal leen pour ñu fës même buñ leen laal laaloon dañuy fës parce que am nañ bagage bo xam yalla xam na ni xamoon nañ ni day fës quoi mais légui nak Sénégal la ñu nekk dëggu perfection la nit ki num la xolé rek non la lay jappé nit ñi bo solé nen ni ñom pour ñom tu n'es pas intéressant xamuñu lu intéressant ci bop nit ki lay nekk mooy luma wax légui mënuñu ñëw ci game bo xam ne kenn gënuñu ko maîtriser après ñu bëgguñu minimiser duñ nangul lolu lolu <laughs> kessa la et eh, lolu xex bobu dañ koy def ba tay ji ni la fois passée yàggul dara rek am même biif bi ak ay awari ak yu demee c'est parce que saa bo amé benn beut bo xamné ne dañu koy xoolee du ñu sous-estimer c'est que ñu dañ lay prouver que ni c'est que du xam-xam nga ñu ëpp du gis-gis bu leer nga ñu ëpp ci aduna gëno ñu conscient lolu ñun dañ lay koy prouver et puis c'est juste ça nekkuloon pour pour quoi que ce soit mais dañ ko def parce que lolu mo waron mëna nek parce que dañuy wax diw mëna na diw mën et alors que ñu lañ leen war ñu ñu xamu ñu dara ñun ñoko mëna et eh, ce n'est pas évident nag quoi nekkul groupe yep ñom ñoo koy def ñu génn ci parce que comme niko Pire waxe buñu ñu defee loolu ñëpp ñu boycotter rap Sénégal. ok chers internautes ba légui yéen ngi ci chaîne chaîne Hann TV mu ngeen ñu suivre ci chaîne YouTube bi euh page Facebook bi tamit à Hann TV euh, boo boo ngeen fa démé rek machallah da ngeen ñuy suivre tamit ngeen partager ki renseignement yep ñu ngi fofu information yep ñu ngi fofu Hann TV ci sen émission l'invité ba légui fii di neuf ma ñew ci yow yan bu diis comme ni ko euh, bon pii di ne kii euh, sûrement ma ñëw si yow pii di nef wax na léegi daara ji moo leen suivre woon ba gis leen génneel leen benn kiiwu yen diis yen bu diis bu nga xamante def ngeen ko ak seen benn collègue muy Crazy Cool man ngi koy nuyu au passage que yéen bu diis bobu lan la leen jox lan la ban ban niveau la leen yóbbuwaat à part woné bi lay def gis moom mun nañu wax bon fekkewu dafa atteindre apogée am comme ni ñu apogée ci ci ci ci nasaraan quoi parce que son boobu vraiment comme ni ko gars yi waxee parce que avant son bi bu ñu génnee wane laay def dañu am bif ak yi quoi wàccee yenn MCs xam nga parce que diisuñu quoi et ce ñu ñu doon joobal gars yi boykatuñu quoi dañ doon enregistré ay Ayma Diop gars yi boykatuñu kenn du ñu woo ci manifestation yi ñu ne ñu bon attends ñun xam nañ li ñu bëgg def quoi nañu retourné daaf gërëm koo na suñu job

di bon di simati di yàq der quoi est-ce que comprendre mais ñun coow jibul ñun bu leen neexee comme lu gars yi dañoo tëju ay groupe underground la ñu dañoo tëju daaf géroo nekk nekk cafétéria gis nanguñu génn ñun lu ñu bëgg xam nañ ko quoi ñun kenn ñu utal direction quoi ñun moom dañoo libre mbedd suñu mi musique la ñuy def lu ñu neex la ñuy def quoi lu ñu santé la ñuy def dans les règles de l'art quoi parce que xam nañ lu ñuy def day jaar parce que xam nañ am nañ bagage fa la ñu xamee fa lañ tur bi ba fa la gën a mën a dem beneen niveau quoi parce que yéen bu parce que moment yi ñu classé gars yi gars yi ne non après Fatick moo duggoon di woote quoi ne non yéen la may seen ne leen ko ci kanam bo yàgg nañ fi quoi te booy yi defuñu fi dara c' est une vague benn gars ay gars yu jàll kese quoi dara game bi quoi mais xam nga pas mieux juste que le temps quoi ñun léegi ñu ngi fi ah leen quoi que ñun xam nañ lu ñuy def xam nañ fu ñu koy teg quoi gars yi dañuy stigmatiser mais xam nañ fu ñu jëm ak lan lañ bëgg quoi lu leen neexee gars yi def lu leen neex mais rab bu dëgër bi la ñuy def parce que fu ñu jógee la yow gis nga fii lu fi xew quoi gis nga bon mënoo jógee ci quartier bu défavorisé nga def yenn ngay def yeneen xeetu rab quoi ñun mënuñ def mainstream parce que buñ la ñu tàggatee quoi ay banlieusards lañ ci BMG la ñuy xool spirit BMG ak rapojo ak xama boo yaakaar naa boo amee yeneen xeetu musique mënoo ko def quoi léegi yeneen bouddhisme moom ci gàtt moom yóbbu na fukkeen il nu qui ci de niveau quoi parce que son bu mu même ñi nga xam ont dañ la doon xëy dañ lay ils ne la dem mais booy son bi on a def gens qui son bi ñoo ko def ñun comme la waxee ils rek des gens qui son fàttali nañ ko ñun xam nañ Ils def lu ëpp loolu quoi xam nañ mën def lu a lu gën a dem bu diis quoi est-ce que comprendre nga ci ci ci niveau boobu ils nekk quoi def bu qui passé nañ ko 2009 la instant ñu ci quoi ci jël compila euh, son boobu si boppam. si compilation bi. et puis euh, yow loo ñuy tollee ci yenn bis boobu lan la leen gën a yóbbu leen apporté boobu lu positif waaw ci ci ci fi ñu nekkoon la ñu ñu daf ñu dolli par rapport ak fi ñu nekkoon parce que ci liggéey lañ ko mës teg te gëm nañu àdduna bi nit lépp lu mu yëngu liggéey moo ko mën a fay quoi amul leneen la xam ne lu ko mën a fay la quoi yan bu diis. pour man xam nga benn business la ba xam ne dafa bokkoon ci carrière Fuk n a dexee jox ko li ñu ko war a jox comme ni ko gars yi waxee sànq parce que moo am nañu quatre album ñi am nañu deux album Fuk n Cook moo fa newoon seul groupe ba xam ne underground la te et puis fexe nañ ba record boobu noonu ñu battre ko quoi te pour man yan bu diis ba léegi ci même logique boobu noonu la ñu teg parce que moom moo andi logique gu def ndam bi parce que yan bu bu diisee rek après da ngay comprendre yee yow kon kenn du la ko yenil yaa ko war a yenil sa bopp quoi te pour nga yenn ko foog nga am philosophie ne yow da nga war a def ndam foog nga am vision bu sori quoi yee pour man xam nga yan yan bu diis ci liggéey la ñu teg daf ñu gën a xiirtal par rapport ak job bi daf ñu gën a kàttanal par rapport ak suñu tips par rapport ak suñu gis-gis quoi waaw ma dolliwaat ma dolliwaat ci lu ndaw parce que boo gisee ñu tànnoon son bi daf ko vidéo parce que ba album bi génnee dañoo woo ay animateur jox leen album yi ñu déglu ko quoi mais c'était aux animateurs de choisir ban son la ñu war a def vidéo mais ñoom buñ buñ déglee son bi buñ déglee compilation son moom moo leen gën a frappé dañu gis ne son bi moom moo gën a mën a jaay compilation moo dañu choisir ko comme comme vidéo quoi parce que c'était bien fait noonu la demee. yéen a ngi seetaan Hann TV fii ci Dalifort tey suñuy gan nekk Fukkenkoog premier partie bi moo nekkoon noonu ci yéen bu dis boobu ñu doon wax sax léegi léegi nii dañuy daw léegi léegi seetaan clip bi régie bu ñu paree rek ñu seetaan clip bi yéen bu diis ñu ñëwaat ci deuxième partie bi bu boobaa ma jëlaat café léegi léegi ma ñëwaat lay a à tout de suite. Avec le pouvoir viennent les responsabilités. Avec les responsabilités viennent les opportunités. Et avec les opportunités vient la corruption. C'était comme la peste. On était tous contaminés. Canaro, Canaro, Canaro. Welcome to Death Ghetto. Fucking too crazy cool. As you know, corruption, is, a fact. Many say they ain't never gonna change. Foolishness. We gonna make a change. A change's gonna come. A change's gonna come. Uh, yo. nit la aajowul du ma liggéeyal kenn muy tedd te du ma nekk da ngeen ni nelaw seen wuur du fay bokk na ci li may wàññi appliqué def tedd man la laa gis yanuwul dañu dis kon jëli nga jaboot laa yor waruñu xiif duñu lekk biif duñu nekk luy ndeyu ngor su dee li nga moom lañ dee xañ muy nekk te doo bañ xam nga li ma lay wax waaye du guddee sëgëm fi jëriñam nawul waaye jullee sikki sëgëm fi sëriñam nawul baal wax bi baal wax bi yaa ngi guddee fexeel wut loo dundee

Cap de Ceuse euh, novembre 2015 ngeen ñëw génnee album def ndam Generation. album bi nekk album bu nga xamante album bu carré lu ñuy wax ci album yëpp euh, mu bokk ci maanaam album euh, comme livre bu muy àndal ak yeneen ak yeneen ci biir mën nga wax tuuti ci album boobu. def ndam Generation comme son nom l'indique mooy yamatul ci ñun dañuy bëgg maanaam toute une génération jeune su Sénégal yëpp parce que nekatul léegi jóge na fu mu nekkoon léegi mu ngi dem xam nga waaw vers autre chose mooy bu ñuy wax daf Ndam generation jeune Sénégal yëpp la ñuy woo ci benn xeex xeex boo xam ne mooy que en fait nit ku nekk foo munti nekk ñu xam ne ndam moom moo la war même bu fekkee ne da nga cóol éducation même bu fekkee ne système bi daf ñu laisser en rade ñun ñëpp malgré coono yooyu noonu yëpp yow ndam moom moo la war et album bi album bu conscient la album la boo xam ne dañ ko tënk ci conscience ak aussi ak euh, ak tamit di revendiquer tamit xam authenticité bi nga xam mom mo nek ci pap bi quoi man fofu la yam après mo bàyyi Pidi comme mom mom mom moom album bi mom ci boppam mu xam moom mu yaatal li ci des quoi. wa carrément euh, album bi mom ñu bari lool lañuy wax sax sondage bi ne Pidi mom mom moo album bi Pidi ban fit moo leen may lan mo len encourager pour ngeen dem jéggi euh, ghetto bi yëpp dem ba bir Sorano di fa présenter album premier album Foukentou. waaw c'est que pour man xam nga lu fi nekk la quoi comme ni ma la ko waxee sànq parce que cafétéria lañ tàmbalee entre téeméer ba tey Fuk and Cook mooy dem après ji hip hop ba koy yóbbu Sorano quoi parce que am na la xam dañ ko mës a gëm quoi xëy na ci yenn gars yi xaw flou mais man suñu bopp dafa dafa nekk la xam dafa leer na quoi parce que comme ni ko Kab waxee il s'agit de vision quoi pour man espoir la ak vision quoi bu ñuy wax def ndam génération mooy xam nga gëm sa bopp quoi ñu nekk ci game di job nekku ñoon di job pour job nii mais dafa am benn affaire boo xam ne moom doon doon joobal ci philosophie ci état d'esprit ci gis-gis ci façon de dundin ci façon de gis parce que man xam nga la quoi xeex la quoi te nit bu nekk comme ni ko kaw waxee léegi da nga am mission ba xam da war accomplir la wala nga ñàkk bañ a accomplir quoi loolu moo ñu yóbbu pour man xam parfois sax xam nga ça m'a fait rire quoi bu nit ñi di taxaw ci Sorano parce que xam naa ne capable naa def lu raw Sorano man dama pare pour bon àdduna bi parce que man xam Sorano lu ñu war a def la et puis ba nga xam ne yegg nañ fa war ko def album bi tolloon niveau boobu noonu pour ñu war ko yóbbu Sorano def ko fa et puis def nañ ko pour man xam nga vision bi leneen la quoi vision bi àdduna wërngal këpp la te dañ koy bënit bu ñuy wax def ndam il s'agit pas de Fouken ku kase il s'agit pas de Daf Giro kase il s'agit pas de Sénégal kase quoi bu ñu koy wax en tant que ay africain en tant que ay nit yoo xam ne am benn philosophie ba nga xam ko dañ ko batiroon ci ñun demb quoi mom mo nek li nga xamne mom moy daw ba tay ni pour man xam nga Sorano nice mais xam nga level bi tipsi bi lepp jéggi na Sorano quoi. depuis euh, le 21 juin euh, le 21 novembre 2015 ben silence bu ngandé lañ gis si Foucaincourt lan la. silence par rapport encore. bon par rapport génn show bon waxuma def manifestation yi mais genné son yi comme nu ko Fukkenkook doon defee génne concert organisé maanaam silence si milieu hip hop quoi. amul silence parce que yow bu fekkee yaa amul silence parce que album bu mu génne da ngay ne génnewuñu son bu bees nangu mais amul silence parce que nous sommes présents nous ngi présents si ci album bu mu génne daf nañ tournée nationale daf nañ tournée internationale kon silence amul quoi silence amul déjà 28 janvier après après 21 jan après 21 novembre la def nañ fi concert Sorano dem nañ fi sor dem nañ fi Tambacounda dem nañ fi. Euh,

buñ santiré sentiree album tey tey tey dañ koy def quoi mais ñun dafa am ñuy fonctionner quoi bu gaa yi ñun ñi né lañu ñuy jaar parce que bokkuñu gis-gis bokkuñu tips ñu trajectoire bokkuñu ñu ñuy ñuy liré ñuy liré game bi quoi lool kese la du leneen quoi. problème bi moy silence total dafa am parce que loolu gaay yi ngi ko confirmer manam képp ku xamoon ko silence bi dafa am manam album bu génnee suivi day am suivi bi moy limu expliquer expliqué concert yi loolu c'est forcé.

réplique bi dafa war am parce que loolu dafa bok ci mission Fuken ko bu ko gaay xamé buñ ko xamul légui nak loolu non lañ nekkoon di matal moy que la la la on bosse sur deux projets bo xamné ne benn bi mu ngi tudd weesuwul benn mu ngi tudd kër Dalifort et c'est des projets qui nous tient à cœur durant et pendant ñu ci doon di xalat di ko liggéey et c'est le moment pour ñu def ko benn projet bi côté sensibilisation la moy weesuwul bi day def sensibilisation ci citoyenneté solidarité ak euh, avec l'environnement. environnement et non non non non non <laughs> ben parce que silence bi au final moi que dañuy créer structure boo c'est pour euh, culture urbaine bi comme nous j comme nécessaire que Cook rôle et pour mission loolu dafa bokkoon ci projet wu Def Ndam Generation dañuy wax buñu ñu album bi li ak li ak li mais buñu tollo fi li ak li ak li et tay ñu tollu tay ci réaliser suñu projet yoy noonu ñu ngi won ci wut partenaire ñu ngi won ci bind projet yi et terewul tam ñu ngi côté artistique bi ñu ngi def scène yi comprendre nga et tay xeyna na mo waral silence bi et je pense que loolu nekul silence parce que affaire bi ay patch la dañuy job ci li mu am moment bo xamne dañuy nekk ci lenen li comprendre nga et xeyna moment où moo waral ñu wax silence ay activistes parce que 2011 2012 2013 dañu off carrément bokk na ci li sur taral album parce que ay a lañ ñun ay rappeur lañ dañuy wax bi doxul président bi machin et alors que bu ñuy woote non non ñun bokkuñu ci ñooñu ñun lu ñuy wax. pour suñu dëgg di ko kaas li ñu leen ñu war a def ñun bu ñu amee taxawaay pour def ko dañ koy def et dañ doon bind lyrics si di kaas et Y'en a marre bu mu jotee mu wootee ñun dañuy dem parce que ay activiste lañ et loolu noonu break na 2011 ba 2013 nekk ñu ci benn ci benn activité bu dul activité ak kii dañu nekkoon carrément ci côté activiste nekk ay Y'en a di liggéey di xeex xama wàcc ci bi di xeex di xeexal suñu askan ba loolu noonu weesu ñu nekkaat ci suñu album génnee ko pour man Fuk Cook moom mooy moom mooy fonctionner noonu nekkul rek rap kese la ñuy def comprendre fu may ni xëy projet yi ab bu ñu gën a dem dinañ gën a yaatalaat. foofu Free euh, Cap dafa ñuy sànni direct ci question bu ñu waroon ñëw bi maanaam Y'en bu ñuy dégg Y'en a marre Y'en a marre dinañ ne Fuk Cook mi ngi ci biir Fuk Cook euh, bu ñu leen si gisee dañuy gis tout temps benn membre bu gën a fës muy Cap de Sës foofu en tant que Freeloader euh, intellectuel bi nga xamante ni. jangam amna na fu mu toll comme malal ni muy jëlee devant yi lu ben membre fukkeen ku comme yow mëno jël devant tamit pour euh, woné sa bopp ci yanama waaw <laughs> question boobu question bu may neex tontu la parce que mu tuddati di yanama du ay affaire de mu tuddati kii ki mo gëna jang wala ki mo gëna ki quoi chat il est Thiat il est le moyen diplômé le moyen diplômé du du du mouvement quoi te pourtant c'est lui le le porte-parole Fadel ëpp ma diplôme ëppul ëppul ma diplôme mais c'est lui le coordinateur. seen affaire bi du ay affaire de diplôme wala kii quoi ku mën def dara dañ ngay bàyyi mu def ko yow boo fa yow boo ñëwoon ci mouvement bi nga ñu xam ne ne yow mën nga mun nekk porte parole bi dañ lay jox porte parole bi nga gérer ko pire bu fa ñëwoon ñu xam ne war mu nekk coordinateur dañ nga jox coordination bi mu gérer ko yaanaama du ay affaire de diplôme wala affaire de xam-xam wala affaire de mën dara la quoi du say what you can ñu jox la nga def ko loolu la quoi comme ni américain di wax what you can et kenn gënu ma ci liggéey grain kenn gënuñu ci liggéey grain engagé et je pense que ce noonu nous am solo et nous jeunes Sénégalais Nous savons que nous day am ku nous et puis aussi nous devons ko suivre Nous ji nous yónni yonante bi Nous ji Jésus Christ Nous lañu comme ñeneen ñi n'est-ce pas mais nous ñi suivre Nous sommes am solo ci et leçon pour suñu Nous frère frères. yu nekk si nous ñu Hm, modestie wu di wàccee sa bopp nangou son djité la ken dou la nangoul do djité ken loolu moom moy aduna ñun non lañu comprendre. da ngay modestie ci bir aduna bi euh chers internautes ba légui yéen ak ñuy top ci chaîne YouTube bi mu ngeen tamit dem ci page Facebook bi. ba léegi dañuy ñëw ci euh, question internautes yi question internautes yi amna ko xamanteni Khadija la tuddu Khadija néna na bon. géejawaay am na ji hip hop Rio am na xaw ma nan hip Afrique culture urbaine am na Dalifort ak nu mu toll si représenté hip lu tax benn structure bu mel noonu taxawu fi ba léegi ñoom pour seen pour seen rakka yeeg jarbaat yeeg yii di ñëw quoi fii pour man xam nga question bi sànqab lu mu doon expliqué pour man tontu na pour man temps la ba nga dañ ci bu ñu kee mën a ci retard wu quoi ñu ngi ci comme ni mu la ko waxee sànq par rapport ak projet yi nga nekk xam ne ñu ngi nekk di si job te da lay andiwaat comme ni mu doon wax sànq projet yooyu noonu booy xool fukkeen ku moom moo si job mais dañu porté association yi ne Dalifort liggéey bi pour jeunesse su Dalifort gis seen bopp xam ne lii nii seen job la quoi jeexintal moo nekk bureau culture urbaine bi nga xam ne dañ koy samp pour mu a jëmmal hip hop bu Dalifort en général quoi. ok ci biir loolu deuxième question Free Loader néna à part musique bi hip hop bi coup ci lan la ne.